جل الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون شر خيره جل الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون شر خيره صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak euh, seen sit internet di Wilaya TV ci ni ñu ko doon doxalee ci suba ba léegi ñu ngi fii ci kër Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ñu gën koo xam ci kër Baye Mor Diossi ci arrivé bi nga xam ni ñaar la ay section yu am solo ci fédération bi muy section Dakar ak section Thiès ñu yegg si léegi fii ci Touba Mbacké ci màggal gi nga xam ni moom la ñu defal ku tedd ki di Serigne Touba Khadimou Rassoul ñu war a ànd ak ñoom kon ci seen i jëwrin naka lañ dundee bis bi waaye tamit naka lañ waaja bis bi ci seenu takku ba mën a nosu ba accès nii ñu accès ci dëkk bi kon dañ leen di bàyyi ak euh, kilifay section ñu wàccaay ko wàccaay bi nga xam ne bu mucc ayib la maanaam waajal ko ci njàngum arxuraan mi ci dajale mbooloo mi ci dajale sas yi dajale àllarba fas yéene ñëw yeesalaat sunu taxawaay yeesalaat sunu nekkin ci digle bii nga xam ne digle bi yàlla la parce que Serigne Cheikh Fatma kat moom mi nga xam ne moo tajaloon mbooloo mi ba mu koy wax daf ni yoon bi gën a gaaw egg sunu boroom moom la kon bu ñuy dem dañuy jàpp ni heure bu ñu jëmee daayira rek moo ñuy am fii moom lañ koy jàppee dañuy jàpp ni tey jii dañuy waajaat pour fekki sunu borom kon def nañ ko ci def bu sell ci def bu mucc ayib denc ñu dara Euh, euh, nous on a ménagé aucun effort afin qu'on puisse réussir ce pèlerinage qui nous tient à cœur. ñëwoon nañ fi heure bi daaw yàlla defal nañ sutura ren ñëwaat nañ ak mbooloo mi nga xam ne moom lañ mi ñu fi ñëwoon daaw moom fi ñëwaat ren kon lool rek dool sante suñu borom bu baaxa baaxa baax ñu ñaan yalla yalla defal ñuk at yu bari and ak wër ak tawfiq saxal ñu ci ab taalibe ñetti entité yi ñoo bolo pour mëna doxal comme niñ koy défé daal di koy waajal buñ joggé magal daw lañ xamné bis bi bis bu mënul ñàkk la ci ñun mooy suñu bis. ni ko Serigne Cheikh waxe woon bis bi dañu ko féetale ñun waa Daaru Xudóos bisu bisu murit yëpp la mais fekk bis bi dafa am fu mu fu mu ci toll woon ci Serigne Cheikh ba nga xam ne dañ ko féetale moo tax ñun waa Daaru Xudóos képp ku bokk taalibe Daaru Xudóos ñu jël ko mu féetewoo ñu ko. nga xam ne dafa ne bis bi mu ñëw ne suñu bis la bisu safar buñ ci kenn mun kon mu nekk loo xam ne lu yéeme la ba nga xam ne ñu ko doon defee daaw daaw jég noonu lañ ko def dajaloo nañ. waajal màggal gi def convoi comme niñ ko doon defee. dajale suñu siège Pikine biñ fa joggé ñu jël wa 50 moy wa Mbambilor ñew taxaw Thiès jël wa Thiès añi njaareem Kër Baye Tedd yegg si fii instant bi door dugg ci Touba. C'était abordable, on a passé une heure tranquille, on a passé à Djourbel. C'était bon, c'était une route très abordable, on nous a bien accueillis à Djourbel. on nous a tout donné. ak si Touba ci jamm ànd bu rafet macha allah ñu yëg ci daal loo xam ne nii seet na suñu xol lool macha allah euh, duñ wax lu dul am ci satisfaction totale euh, di di di di xam la rek ne màggal gi moom mu ngi nii nii la rek mbégte lay doon rek saa su nekk di sant di gërëm euh, Cheikh Mor Moustapha mi nga xam ne nii moom moo ñu moom moo ñu jagleel xéewal gi parce que yoonu murit ñu jagleel ñu màggal gi jàpp naa ne loolu tawfeex la euh, sant rek euh, doole sant bu baax.